Chérif Diama bàyyi laa gen gi dem ba ginnaaw bi na la nuyoo ñu ngi rafetlu ànd bi ak TFM maa ngi leen di nuyu Chérif di rafetlu aussi sama teewaay fii di contribuer ci échange yi nga xamante ne moom la ñu dooree ba ba léegi li jëm ci wàllu rapport Cour de comptes bu bi publier ce que vous payez mooy lan les secoupe réseau mondial boo xam ne dafay dajale kuréel yu bëri ci àddina bi mu nekk ci cinq continents yëpp ñu am lu ñuy tuddee ay coalition nationale dans tous les pays may jiite nag coalition yi nga xamante ne ñooñu féete Afrique sowu-jant. Hmm, ce que vous payez maanaam vous vous adressez à waaw plus ce que vous payez bu njëkk ba slogan la woon en 2002 déjà moo waral ITIE sax juddu parce que. Euh, dans les années 2000 citoyen bu mel ni yow ak man muy journaliste bi muy gëstukat bi mënuloon am accès si yenn information yi jëm ci li nga xamante ne hmm. société pétrolière minière ak gazière yi loolu lañ doon produire hmm. comme mënuñu ko woon am ci li nga xamante ne sunu état yi ñoo koy am ci koom-koom googu ñu tourné waat ci société yi ne leen léegi da ngeen di publier li ngeen di fay dërëm bu ngeen jox sunu état yi publier leen ko su ko defee ñun on va les rendre beaucoup plus redevables. transparent leer. mu leer transparence redevabilité. mais transparence boobu wala la est-ce que am ngeen ci ay résultats est-ce que bi ngeen taxawalee lii ba léegi gis ngeen ay sociétés yoo xamee ni euh, ñu ngi publier li ñuy euh, jox koppar euh, état au Sénégal. waaw ah, premier résultat bu matériel bi déjà en 2002 2003. moo waraloon création lu ñuy tuddee initiative pour la transparence dans les industries extractives liñ ci am comme résultat c'est que tey jii rapport bu bees bi mun na la permettre nga xam ne Sénégal jot na li toll ni euh, deux cent milliards ci exploitation des ressources minières en deux vingt et un donc loolu déjà c'est un élément probant li nga xamante ne résultat la ci li initiative yu mel noonu. Mmh. dina ñëw ci rapport boobu sax bu ITIE bi mais di gën a indi coow fii ci Sénégal mooy bu Cour des comptes bi dégg nga li ci Souleymane wax ak sorte bi ci président def démb en conseil des ministres lan la la inspiré comme commentaire yooyu mu joxe. alors euh, avant ma ñëw ci directive yi deux trois commentaires dama jàpp ni d'abord crime organisé la te rapport bi boo ko liiree dafa effectivement détaillé nan lañ tegee de façon opérationnelle li permettre détournement yi yëpp am wala écart yi yëpp am premier commentaire deuxième commentaire carnage financier la pour un pays bi nga xamante ne ay ressources am amuñu doole boobu euh, li as tuut bi ñu mobiliser woon ci Covid bi Sénégal am signature bu baax bu ñu permettre les partenaires techniques financier financiers internationaux mobiliser xaalis bu bëri dénk ko Sénégal sur la base bien sûr de la dison des des opportunités économiques. yoo xam ne mën na permettre Sénégal rembourser loolu. yeneen yi ay dons la sénégalais yëpp mobiliser seen doole. donc ma jàpp ni crime la carnage financier la boo xam ne teg nañ ñu ko léegi nag jéego yi président bëgg a teg walla yoon bu mu jël man de dese naa dal sama xel parce que du waaxu soxla. parce que ma gis ni rapport bi man yàgg naa lire ay rapport Cour de comptes bii bokk na ci boo xam ne li ngeen di tuddee radioscopie la dafa leeral de détail bàyyul benn détail donc ma jàpp ni. Euh, maanaam soxlawut beneen commentaire. soxlawut beneen commentaire na ko jox garde des sceaux garde des sceaux instruire justice parce que Cour de comptes gannaaw moom mënul àtte du juridiction boo xam ne dafay woo ay nit di leen juger moom ay compte lay juger donc nañ ko jox ki ko war a def mu xam na lu mu war a def. Mhm. xaar mhm. ñu dem côté bële gars yi laaj waaw. Euh, waaw waaw. que Cour des comptes am nañ chambre de, de de discipline financière mais ça c'est pour les comptables publics. bu nekkee ni ñii am na ci ay comptables publics yoo xam ne euh, voilà et cetera mais euh, comme vous avez vu dans le rapport dañoo contourner comptables publics yi. parce que dès lors que amul woon contrôle euh, préalable amul woon système de visa et cetera les comptables étaient disqualifiés. à la limite li ñu doon def moom mooy euh, vérification de conformité entre la signature et le spécimen pour administration yi nga xam ne dañoo ubbi woon compte dans des banques par exemple euh, à partir de ce moment-là euh, y a pas matière à juger hmm. euh, peut-être des comptables publics sinon euh, peut-être qu'on aurait sauf que sauf même acte boobu ñu posé dafa am ay déviance dafa mel ni tey ji nga am urgence centre ville même bu dee président de la République moo la wóolu woon taxul nga jël beneen sens su bi nga sel sens benn sensu tali bi benn taxul nga brûler feuille au au à sauf si ñu tegal la ay ay flèches yoo xam ne dina permettre nga brûler feuille yooyu te ñoom la seule flèche bu ñu leen tegal mooy dañ leen soustraire ci procédure euh, code des marché publics mais taxul ba pare mieux dañu créé woon lu ñuy tuddee des comité internes de vérification des comité yoo xam ne musuñu réunir pour di vérifier ensuite le comptable il a une responsabilité individuelle donc li la njiit li sant ci accélérer processus président Macky Sall mesures yu mu jël mooy pour accélérer procédure yi fu waroon fu ñu waroon jël trois mois de vérification mun ne leen war ngeen ko def ci benn semaine wala ci benn weer loolu la ñu waroon mën a def mais pas que ñu ne la da ngay dévier toutes les règles minimales dafa am loo xam ne règle minimale de comptabilité la même même est-ce que bu ñu leen soustraire ci code des marchés mais la quand même mu am au moins concurrence d'ailleurs soustraction boobu sax entre guillemets lañ koy def du soustraction mi mm-hmm. allégé la dafa créer yombal ko pour euh, ñu mën a mu mën a gaawal ñu mën a baral yenn procédures yi nga xamante ne fi nga waroon jël ñetti weer pour jëndi mais loolu ba tey xam nga li ñuy tuddee gré à gré euh, terewuñu ko ci code bi mais dafa am lu ko encadré ma gis ni yow war nga ma mën a jaay ay téléphone wala ay caméra wala ay micro terewul bul yëggee yenn somme yi ñu wut keneen koo xam ne concurrence la ñu jaay lu gën a yomb su ko defee nga ne leen yéen ñetti ñi yëpp comme am ngeen produit bi ñetti fan laa leen may ngeen proposé ma ay facture proforma su ko defee ñu xool sur cette base là kon ban parce que ministère de la santé am na fi mooy PNA am correction on avait reçu quelqu'un ici il a dit ñoom à l'époque li ministère bi doon wuti si soxna si nga xamante moo gagné quinze marchés yi amoon na ci euh, pharmacie ne moom moo waroon def sax les tests Covid laa yi nga xamante ne moom la ñu jox IRSF moom la ñu jox. Institut Pasteur koo xam ne war nga ko mën def nga amal ko sa bopp yow état au lieu nga renforcer kooku mais nga dem signer ay convention wala jox ay ñeneen subvention yoo xam ne même convention yu ñu signé ak ñaar yooyu dara leeru ci dañ bind ni ko rek yéenay def test yi amul beneen rôle ak responsabilité yu ñu éclairé par rapport ak li ñu dénk loolu. noo noo gisee président bi goro bi dem moom mi ne Cour des comptes gars yi dañuy politique je crois que écart de langage la et et, et c'est, c'est très dangereux ministre def loolu lu ko génnee sax moom lan la ci. fan lañ ko tudd dañ tudd turam. kenn tuddul turam daajam lañ tudd daaj. oui mais daaj bi du daajam. daaju Sénégal comptable Sénégal parce que nag koo xam ne alalu sénégalais yi nga yore moom ngay manipuler donc agent fonctionnaire nga walla agent préposé à cette fonction de comptable public nga donc yoonu ministre nekku ci au contraire li ma mën a gën a accepté que ñoom ministre ñu naan ils vont contribuer à éclairer tout ce qui s'est passé. non léegi léegi ëpp sax ci biir bi sax mi koy reproché d'ailleurs. du du rôle am di ko reproché moom ordonnateur la moom la donc li mu ko sant mu ordonné ko kooku mooy xool sur la base est-ce que liñ ma sant. méngoon ak li def dafa mel ni tey jii chef de rédaction bi nekk fii eh, ne journaliste bi nga xamante ne moom mooy présenté journal bi boo eggee boo commencé rek saagal ma diw mais yow c'est ta responsabilité personnelle la parce que boo defee injure publique duñ ko toppee ki la sant yow mii nga xamante ne yow yaa ko war a def moom lañ koy laaj mm-hmm. Mm-hmm. dana et président bi tamit réaction bi conseil des ministres est-ce que comme Souleymane jàpp nga ni dafa sedd trop par rapport ak gravité situation bi sa à dire la limite président xam nga moo fi génnoon ne sénégalais yi ci guerre lañ nekk ñu jël ay mesures exceptionnelles yi nga xamante ne à la limite démesurée la sax parce que amoon na ay droits de l'homme yu bëri yu gis ni que les mesures ont parti au-delà de de ce qu'on donnait au président la République restreindre suñu ay droits tëj ñu tëj ay mosquées amaana sax bu ñu bàyyoon nit ñi ñaan ci jumaa yi ak ci église yi sax xëy na Covid bi du amee noonu doole mais loolu yëpp ñu jox ko ay mesures exceptionnelles mu tëj ñu ci ay kër tëj ay régions kenn mënul dem kenn mënul dikk Euh, rapport bi nga xamante ne yow sa cour boo xam ne yow yaa ko réformé en 2012 jox ko pouvoir yu bees jox ko ay euh, compétence yu bees bu génnee rapport bu mel nii man dama jàpp ni da nga li nga waroon def mooy d' abord féliciter la cour la cette cour là à féliciter d' sur la méthodologie de travail mm. méthodologie bi mooy lan mooy sa je je l' exactement à ni ngeen di doxalee yéen ci seen i ay rédaction d' abord collégiabilité bi cest à du lu la neex mooy jàll ci journal bi lii li nga xamante ne collège bi d'accord rédaction bi yëpp li ñu d'accord mooy jàll benn deuxième chose am na lu ñuy tuddee principe de contradiction principe de contradiction mooy lan mooy cours bi bu la dégloo ba bind rapport am dalay jébbalaat rapport bi yow ci sa bopp mu jox la temps nga liir liiraat rapport bi li nga d'accord nga nekk lii d'accord naa ci li d'accordul nga ñëw expliquer waat devant eux su ko defee ñu bindaat encore rapport bi même si la langue ne te convient pas ils sont prêts à changer la langue bi ñu ko bindee. Mm-hmm. donc loolu mu nekk deuxième deuxième euh, troisième bi mooy lan objectivité. xooluñu ndax séeréer nga kii tukkuleer la ndax kii nord la jóge kii sud la jóge xooluñu loolu sa identité intéressé wu leen xam nga lu leen intéressé hmm. document yi nga liggéey moo leen ci intéressé mettez à not disposition tel tel tel document looloo leen ci intéressé donc bu nit yaakaaree ni derrière c'est la politique c'est des fonctionnaires assermentés yoo xam ne kenn si ñoom minimum am nga dix ans d'expérience bala ngaa dugg ci cours yi c'est des élites Sénégal am na ay au moins quatre corps yoo xam ne élite ñoo fay nekk hmm. boo demee IGE du ku nekk ma fay dugg boo demee IGF e mooy inspection générale des finances boo demee cour des comptes concours très sélectif ñoo moo fay dugal nit sur la base aussi de sa expérience mm-hmm. bu concours bi jàllee du ci bind kese dañ leen di woowaat même magistrature noonu la mu am entretien jury bu varié ay professeur d'université dañu fay nekk xanaa ñoo ñëpp da nga déw ma ne chaîne boobu yëpp ay politiciens lañ bu ñuy recruter nit ñooñu ba pare politique tënkul waa cour bi parce que nekkul ay magistrats yoo xam ne mën nga leen jël ne léegi dama lay sanctionner yóbbu la Kédougou wala yóbbu la feneen tu appartiens à une cour mm-hmm. boo xam ne fii rek la nekk mm-hmm. nekkul feneen monsieur Seydi kon ci genre contexte yu mel nii rek xëy na nga fàttali ñu euh, seen coalition euh, yan doxalin lay lay lay faral di euh, di am ci transparence ak redevabilité la ñuy yëngu transparence mooy yorin gu sell maanaam c'est à peu près le ce serait les mêmes à deux acteurs différents yi nga xamante ne cour bi moom lay def ñun procédure ak ni ñuy doxalee ñoom noonu la ñuy doxalee donc mu doon lu am solo redevabilité mooy lan mooy que jox nañ la lu moo sénégalais mobiliser nañu toll ni sept cent et quelque milliards ci li nga xamante ne yaa ko laaj sénégalais ñu jox la ko ci ay autorisation de signature ci ay contribution individuelle et contribution collective ñëpp tegal la ko partenaire technique yi yëpp indi xaalis teg donc finalité bi mooy lan mooy jusqu'à quel niveau contribution boobu ñu la jox la contribuer à à la résilience bi nga tuddoon parce que moom moo génnee d'ailleurs l'ingéniosité de dire c'est un programme de résilience maanaam jox nit ñi dooleel leen ndax ñu mën a Euh, faire face mais vous avez vu combien de morts on a ni moo tax ma jàpp ni lii crime contre l'humanité la hmm. parce que nag buñ la joxee alal googu yëpp nga war a mën a fajal sénégalais yi seen soxla boo comptee c'est que rapport bi lu tax ma tuddee ko radioscopie d'ailleurs c'est que même le nombre d'ambulances médicalisées yi Sénégal am yëpp bind na ko nombre de lii yi Sénégal am bind na ko nombre de tests yëpp bind na ko donc bu fekkoon ne kuy def thèse la boo jëlee rapport bi xanaa nga changé titre bi def si sa tur mun na nekk thèse de doctorat hmm. tellement il est clair détaillé objectif hmm. donc ce qui fait que aujourd'hui sénégalais bu nekk ce n'est même pas une question de publier ce que vous payez ou de Mademba wala Massamba tous les sénégalais parce que d'une forme ou d'une autre vous avez contribué chaque hmm. sénégalais individuellement contribué nga soit financièrement soit par l'obéissance même des règles qui ont été eh, édictées par force vingt heures fu mu la fekk yéen fi doon vingt bu jotee ñu naan dans toutes les télé vingt heures c'est vingt ku nekk toog sa kër. voilà ñuy nangu teg jumaa yi. bi tàmbale na vingt heures c'est-à-dire que euh, ku mel ni Iran Ndaw yuuxu na fi ba sonn nañ tijji jumaa ji kenn nangul tijji jumaa ji. qui aurait pensé qu'au Sénégal dinañu tere màggal am qui aurait pensé ça dans ce pays-là kenn mënu ko woon xalaat gàmmu kenn mënu ko woon xalaat ziyaara du am c'est un pays où. c'est des pratiques yoo xam ne munuñu ko dispenser sénégalais yi donc ñëpp accepter loolu tabaski jot vous vous souvenez en 2020 tabaski kenn julli jiwul mhm. les gens ont prié chez eux ñu tëj ko euh, xëy na lébu yi lu ñu amoon ci lu ñu mënoon réglé ci situation ak géej gi yëpp ñu tere lañ ko toutes les plages étaient fermées amaana sax boo bàyyoon lebu yi foofu am na lu ñu fay mën a def looy xam ne benn lebu du am Covid. et cetera et cetera donc mm-hmm. c' est pour vous dire combien nous tous nous avons contribué d' une forme ou d' une autre et que nous ils nous doivent des comptes. léegi société civile bi jóg ne dañuy manifester le 30 yéen yéen a ci biir yéen waa publier. gis nga fu mu ne nii forme de combat bu ñu mënta am nañ ko def parce que ni mu annoncé woon guerre noonu la ñuy nekkee ci guerre pour la redevabilité ne serait-ce que ñu leeralal ñu. lii nan lañ ko doxalee ak fu mu dugg. voilà mhm. Chérif man euh, plaidoyer bi tey lan moo war doon message bi pour mobiliser vraiment parce que wax ko léegi c'est une affaire euh, de tous les Sénégalais ñëpp la concerne tey parce que bëri na ñoo xam ne yëkkati nañ as tuut ci. Euh, donc tey c'est quoi message pour vraiment demander aux Sénégalais vendredi bii di ñëw ñëpp mobiliser wu quoi. Sénégalais bu ne. xam nga mbokk bu gaañu daan des conditions atroces ci Covid bi. Sénégalais bu nekk. tëj nañu la ci période Covid bi ne doo génn am na yoo xam ne dañu tukki woon ñu jël décision bi fekk leen fu ñu tukki woon mënuñu ñibbisi am na sénégalais yoo xam ne muy jullit muy katolik bu nit deewee dañ koy defal obsèque bëri na fi ay kilifa sénégalais yi fi gaañu sang sax amuñu ko juróom ñaari nit wala juróom wala ñetti sapeur pompier ñoo leen dugal ci bâche dem suul fii lañu fekk ay kilifa ay boromi daraja ku mel ni président Pape Diouf par exemple damay joxe exemple boobu parce que moom moo bu euh. njëkk bokk si ñu gaañu. Mm-hmm. ci Covid bi ah, alors euh, ku ko woon ñeenti nit ñoo lay suuli ci benn bâche dem dugal na fii yoof dina ko gëm. voilà deux deux, deux questions avant ñuy tëj. voilà parce que quand on parle publier <laughs> mën nga ko jeexale ah parce que vraiment c'est xam naa bu ñu noppee ci lii aussi loolu aajo na ñu saytu ko. Mm. parce que li ñu gis si réew mi doy na waar donc ñu jël xaalis boobu yëpp jox ko ay nit. ñoom ñu tëj ñu après di def tong tong xaalis. Mhm, mhm. mais cest à lu gën a littéral mooy benn nit individu sénégalais bis bu ne nga jël chèque dem récupérer cent million cinquante millions loolu warul. sax permettre mhm. même à la banque aujourd'hui boo ko doon def ñu laaj la chèque bi ñu woo ki ko bind ainsi suite mais dañ nekkoon ci situation boo xam ne laisser ale la woon mais regardez même les banques où ils sont partis récupérer l'argent BNDE BDK LBA mooy la banque euh, agricole là c' est banque banques comme ça yoo xam ne c' est des banques yoo xam soit en majorité état bi moo ci. moo ci actionnaire wala ñi nekk ci état bi seen bopp ñoo ko. voilà Souleymane après Chérif euh, nga tëj. Euh, euh, la coalition payez ce que vous vous. payez ce que vous payez publiez ce que vous payez. bu ñu xoolee ci industrie extractive yi est ce que euh, les les les entreprises ñu ngi fay ñu ngi fay déjà li ñu war a fay. est-ce que li ñuy déclarer ak li ñuy fay réellement yéen vous vous assurez que c'est conforme amul ay sous-déclaration wala yu ni mel wala na ngeen koy defee xam nga li li li li li rapport pour des comptes bi génnee finalement dafay même décrédibiliser toutes les autres déclarations yi nga xamante ne kenn ku nekk def na ko parce que bu ñu toogee ba ci ay comptable public ñooy Eh, ñooy ñooy def njuuj njaaj yi nga gis chiffres yu ñuy pomper dans le rapport c'est le rapport qui les qui qui sort ces informations là finalement te dis que cour boobu moo doon vérifier les comptes des autres finalement les mêmes pratiques les mêmes faits peuvent se répercuter dans la même situation surtout que nous euh, finalement ça révèle que nos agents publics on les les pas faire correctement leur travail de vérification d'abord muy douane muy impôt muy agent public nga xamante ñoom ñooy vérifier les comptes même de ces de ces de mais littéralement li ñuy mën a jàpp mooy les compagnies ñi nga xamante ñu ngi ci périmètre ITIE elles sont assujetties a ces déclarations là maanaam kenn ku nekk fin d'année da ngay déclarer toutes les informations yoo xam ne ñu ngi la koy laaj am na sax ba tey ay compagnies yoo xam ne dañuy bañ carrément te je sais pas pourquoi état mënul jël ay responsabilité am obligé lañ ñu def ko parce que loi yi encadrement institutionnel et juridique bi leen di obligé ñu déclarer yooyu mu ngi fi. Hmm. donc loolu mu nekk manquement boo xam ne bu important la fi mais nag li ñu fayul mooy lan les compagnies là dañu am obligation depuis 2016 sur la loi minière at bu nekk ci seen chiffre d'affaires ñu war a jël 0,5 pour cent jox ko. les communautés qui sont affectées par les opérations minières ba tey benn compagnie génneewul dërëm euh, ensuite état bi ci boppam li muy mobiliser ci xaalis chaque année ren mu mobiliser deux mille vingt et un mu mobiliser li toll ni deux cent milliards vingt pour cent de ces deux cent milliards la dafa ko war a dellowaat les communautés. deux cent vingt trois virgule quinze milliards. mu ngoog donc xaalis boobu dañ ko war a delloowaat. les communautés monsieur Seye li ma doon wax léegi est-ce que yéen euh, seen domaine de compétence euh, di ngeen di faral di laal lu aju ci foncier bi parce que tamit. xam naa bu ñu noppee ci lii foofu ñu saytu ko bu baax a baax. nga industrie extractive yi lu ñuy agressé foncier bi moom ëpp yeneen secteurs yëpp lu ñu agressé si foncier bi. amul compagnie bu fi am ay mètres carrés wala ay hectares. c'est des kilomètres carrés environnement bi. kilomètres carrés la ñuy jël. Mm-hmm. ce qui fait que agriculteurs yi féete boor ba yëpp déjà dañuy jël seeni ay terres sur la base lan euh, utilité publique bi ñu déclaré projet bi. donc ñu dëgër pur leen gis ngeen li xew barki démb saba da laa ba ay kër yi ñu ko ci taal ainsi de suite fekk sa armée lu bopp boo xam ne sax ay armée la ñu jël def ko fosse commune gas pour minerai bi lañ ci intéressé donc mm. foncier bi mooy doon lu principal problème même dans ce secteur. mais bi nag est-ce que parce que euh, ñu ay exonération ci yenn industrie minière yi au moment où quand même aussi am na loo xamante ñu ngi koy xaar est-ce que deux cent vingt-trois aussi néewut par rapport ak li ñu mën a xaar lu ëpp ci yooyu société mais mais li mu li mu néew mooy li ñuy jooy ça fait vingt ans loolu la ñuy tuddee ñun justice fiscale yow sénégalais bi amoo fooy rëccee fisc bi si li ngay jënd mooy impôt direct muy impôt indirect euh, borom boutique bi ci angle bi amul fenn benn exonération bu ko mën a exempté mu bañ a fay fisc mais ki nga xamante ne dafay def chiffre d'affaires trois cent milliards quatre cent milliards jëm kaw kooku lu tax ñu koy exonérer ci ay taxi ak ay donc kooku du fay buy jëndi ay matériel am ay oto am ay caméra ay micro am bu koy indi Sénégal dërëm du ko fay duwaan dañ koy indi conteneur am mu wàccee yóbbu fu fu ko neex. loolu taxoon léeg-léeg nga gis ay conteneur ñëw. ñu <laughs> fekkaale ci arme yi dañu léegi conteneur boobu doon dem Mali ñu fekk ca arme kenn xamul ku ko moom. Mhm. parce que kenn du nangu naan maa ko moom. c'est bon jërëjëf jërëjëf jërëjëf Demba Seydi e. euh, Chérif waa régie nee ma arrêté heure bi jot na voilà euh, Seydi euh, c'était vraiment un plaisir ñu dalal la fii ci info Matin.